yow ma xamal nag dof yi eh, eh, nekk ci cap sa xaw ma seeb APC mooy Ousmane Sonko ni mu amee ay avocat man Aïssatou Diop Fall noonu laa amee ay avocat te dëkk bi dëkku dëkku yoon la ku ñu woo si yoon ñu wuyu la ci yoon boo ñu woowee ci reewande ñu wuyu la ci reewande moo woote gatsa gatsa mais ba muy woote gatsa gatsa ay paala jàkkaar loolu léegi nag jàkkaarloo benn paa benn paa dong la dese muy Amadou Ba mais ñeneen ñëpp mu ñoox moom a yem comme fi woo ci gatsa gatsa ñu wuyu ba ci gatsa gatsa te ñun du ñu gatsa gatsa moom ni muy defee fennuñu sosuñu ñu kenn mais Ousmane Sonko moomul réew mi ba mooy toog ci réew mi di sosal ku ko neex di fenal ku ko neex te kenn du ko tontu amul lu mu mën nag na def li mu mën mooy jël ñu yóbbu ñu prison ñu dem avec honneur ay dignité du ñu dem du ñu ñu dem moom nu mu demee day jooy di xataru di xataraayu di tappaleek def ay yëf danañ dem ma parce que nous on respecte les institutions de ce pays ku ñu porté plainte ñu dem wuyu ji plainte sur plainte kese yor na ay avocat ñu yor ay avocat ñun du ñu ay baadoo la du ñu ay baadoo la tàppetuñu nampuñu deretu tàmpet du ñu ay tàppet yoxuñu

dinaa wax la ma saf ne moom ni muy waxee lu ma saf gatsa gatsa la woote ñun ñu wuyu ko ci gatsa gatsa bu ñu woyee ci lu baax ñu wuyu ko ci lu baax bu ñu woyee ci réew ñu wan ñu wuyu ko ci réew bu ñu woyee ak tribunal ñu dem tribunal moomul avocat yi moomul réew mi te ëpp ñu bii te ñu suñu bii sàcc ñu ko du alalu sàcc du alalu caga bu ñu woyee ci tribunal ñu wuyu ko ci tribunal on a nos avocats il a les siens nous avons les nôtres mu dugal ñu prison ñu dem waaye dugal prison nit ñi pour dof yi mu àndal yombut la preuve dugal na fi buggaan ci tappale mu génn ci dëgg démb génn na napp Cheikh Yérim Cheikh Yérim génn immédiatement tontu ko dugal na euh, ñëkk na dugal Cheikh Yérim Cheikh Yérim dóor ko man nag bis bu ma laalee dana xam ne laal na laalaake buma ma man Aïssatou Diop Fall mo Ousmane Sonko xamna tout son rêve moy mu fut en tôle mais bu boobaa lay laal na laalaake man songu mo wóorul lu leer la wax te fi la ko waxee songu ma wóor dof yu ma andal nak maa ngi di len xaar tranquillement au calme baat bu dik delu dof yu mu andal bu dee Ousmane Sonko moy sen yalla yalla sunu bop sunu ci boppam mi ngi won ñun ñi na ngeen bokal adina ci yef adina do nga lañu dox bu leneen ñëwee ñu fekk si leen si duudu hmm. jëlal wa xam nga li mom bettu ñu on s'y attendait xam hmm. nga nee naa ñu ñëw jël yoon bu métti and hmm. pouvoir ak yomb te neex mais ma gëna a yomb xam nga tay ñi ànd ak ñoom. ñu hmm. leen di jox convention yeeg moyens yi. Hmm. bu ñu gisoon lettre bu bi. Hmm. ne leen on propose un reporter. dans votre caravane. boo moytul ñu wàccee yeneen ñett. <laughs> ne leen place doyu dëgg la. dégg parce que nit da ngay xam kan la kan la nit soxla ak kan la nit soxla. dama tàmm di wax ni. organe de presse bu assumer sa liberté bañ a rogo jéeru naw ko ndax ànd ak pouvoir a gën a yomb bu dee xaalis kese ñoom ñoo la koy jox ba mu doy sëkk dégg mais Sénégal dañuy dund ay instant yu grave instant yu grave yi xam nga mooy lan seetlu leen benn affaire fii ku ñu fi téye rek léegi wala ñu indi la problème rek